pour ngeen xam montant financement bi ak autoroute ñaata la ñuy financer nit yi. léegi comme loolu li ma leen doon wax léegi premier ministre jàppale nañu cinquante millions jaarale ko ci banque euh, Cofina ministre de l' agriculture jox ñu vingt cinq millions Pape Abdoulaye Seck. waaw banque bi li ñu joxe mu jox ñu double bi pour ñu financer euh, jigéen ñi ñun ànd ak waa Mangara ak jàppoo ak Ndeye Sali Dieng. pàccu leen loolu pàccu leen loolu. bés ak muy bébé bi nga xamante ne dafa bees te ñun ñëpp ñu war cee jàpp moom it liggéeyal jigéen ñi rek moo ko tax a jóg jàppale ñëpp moom financement des femmes des jeunes lay euh, c'est une nouvelle structure boo xamante ni, nii day jàppale ñëpp ku am sa soxla rek yaakaar naa boo waxee ak moom dina faju bu neexee yàlla moom tamit def na financement hauteur de 100 millions jàppale ko jigéenu Jurbel yi. waaw tàccu leen loolu. nga xamante ne ñi nga xamante ne bindu nañu ñëpp macha allah dinañ ko dispatché ci compte yi ñi nga xamante ne am nañ seen compte jël nañ seen financement bi dinañ leen ko jox bu neexee yàlla léegi nag dañuy jox euh, quelques euh, financements à hauteur symbolique en attendant banque yi comme Cofina di pare ñu inshallah